والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيدان وسرما في الأرض طرا والسماء من زائر وباطن اختتما alhamdulilahi allati jaxala yowma alxiidi yowma altawsixati waltafrihi walitlaq wasalaatu wasalaamu ala man axrajana min sulmati aljahli walshirki walnifaaqi walimlaaq sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi zawil wifaq wa ala man tabihahum bi isaani fi jumlati afaq amma baad fa xaasal yowmu yowmu mubaarak ولنا فيه سئم فيه لم نصارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه فإن حاصل اليوم يوم أكل وشرب وحق بفضل من جار بفق رفق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصفر بكل ما من الخير يستفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى خيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة الحسيان fa innahu yaxfiru lakum wa yakufu ila xayrikum sawi tuxyaan wa tawajjahu ila rabbikum bilkitaabi wa sunnati wal ijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfiikum man aba fihi lijtimaa bi jaahi dil xatawaati almurdiya sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi dawi l ardiya alhamdulilah li si hadana li haada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alladi lam yattaxid waladan wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyyun min alzul subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin noo ngi jiital ci nuyoo bi xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mahamadou Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ko wér nuy lu bari tey nuyu lu bari tey ndokkeel lu bari borom barab bii de sëriñ si Ahmadou Mbacké xalifa sëriñ Saaliwu yàlla na son borom àggale ay naalam mataleel ko ay mébétam te may noonu jariñu ci moom te ànd ak moom liggéeyam ci barkab Sëriñ Saaliw noo ngi seere ci suñu bopp yi noo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala cant goo xam ne tegu na ci barab yu bari waaye barab bi mu gën a tege nag mooy fekke gi mënu fekkeloo ak tal gi nu tal ak man gi nu man ndax fekke ak tal ak man néewul ci loxol kenn ku dul yàlla sunu borom subhaanahu wa taala kon maa ngi fàttali sama bopp te di leen fàttali nan yittewoo yàlla te bun geesu adduna nañ jafandu te di ci diine te muy dëgg ci nun ndax diine kat laysa fiihi lu baabun wa xusrun li ñu ab saal ak xott amut ci diine kulluhu lu bon xaalisun lii loolu moo di diine suñ borom dafa digle daal di digge teg ca ku jëf ndigal la daje ak dig ba suñ borom dafa tere tëkkoo teg ca ku jëf tere ga daje ak tëkkoo ba moo tax mu wax ci téere bi innama tuuxaduuna la aatin waxaat ne inna allaha laa yuxliful mihaada sunu sant sun borom nag ci bisub tey jii di bisub kori am na laltaay ju wóor joo xam ne mees na koo teg ci alxuraanul karim ndax sunu borom moo wax ni fa man saxira minkumu sahara falyasumhu ko sunu borom fekkeloo weeru koor woor ko tawat wala nga ne cib tukki fay ko kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xam suñu borom may na nu nu woor ko nu di ko ñaan nag mu nangul ko te si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul mi yaakaar bind na ci weeru koor mbind yu bari te mbindum Sëriñ Tuubaa bari gaag néew gaa yem ndax ñaari baatam yu ne jommal na fóore yu jëkk yi ak yu mujj ñaari baatam yu ne it may na yaa dégge loo boo jàngoon téer yu jëkkee te jàngoo ñaari baatam yooyu doo ko ci xamee bokk na ci ñetti bay doo xam dinaa ko jàng fii sahida xaaliqul wara li saaimin fii ramadana bi ridaaxul xaaimin mu ne sun borom dafa seere lañ la seere ñi woor bëccëg yi te taxaw guddi yi seere na ni baaxe na leen ngërëmam te ngërëmal sun borom ne boo déggee dee su ko wax làmmiñ koy tudd waaye dafay lu rëy loo xam ne xaju ci kaw suuf moo tax ci biir téer bi ko fu ko sun borom dee tuddee ma ngi koy jagleel ña nga xam ne dañoo nekkoon ca la mu bëgg ba faatu ba dugg aljana ngërëm la sogaati mu tegaat ci weneen bayit nafnu siyaami sahari fi daarayni yakfikum alhaarayni wan naarayni weer wi ñu jóge ku ko sun borom may nga woor ko sun borom fegal na la ñaari gàcce muy gëdduna gu adduna ak àllaaxira ak sawara adduna gu tegaat ci weneen bayit habatumullaha ala sahari siyaam satadxuluuna jannatan duna iyaam yéen ñi jaamoo suñu borom wooral ko weeram wii da ngeen dugg aljana du ngeen fa ànd ak lu leen di naqari wala lu leen di lakkal ci maru xol wala maru ak put kon alxuraan a ngoog waxi sëriñ tubaa ngoog weer waa ngoog yàlla ko suñu borom nangul nu toll ci loo xëy nag kum jaaxalu tiitam doy nag jaaxale mooy tawat ji xew ba tax koo seen ko ne am lu mu ngaaw ci gimmiñam waaye tawat jooju day ko yaakaar sëriñ tubaa te yaakaar ga di dëgg ci yow warulaa tax a jàq waru naa tax a jaaxle waru laa tax a fér-féri laa tax a dugg ci loo xamante ne bi mënoo ko ndax sëriñ bi de ba may sos dëkk bii lépp lum mu bëggoon rek ñaan na ko ci suñu borom lu mu ci ñaan suñu borom it suñu borom may na ko te bokk na ci ñaanam ya wan fil wabaa wal balaaya kullaha xanha wa tayyib surbaha wa kullaha dëkk bii na nga fi dàq mbas akob nattu ñi fi dëkkee may leen ndox mu neex ak dund bu neex waaye sas la nu nag sas woo xam ne daf koo sasoo woon ci jëmmam moom sëriñ bi sasaale ko ñam nekkaloon nu ñi ko ku fekke wutoo ñu dunu nettali nag mu bëgg sas wooyu ñu sasoo ko muy wal bi tusbitan fihi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa daban ya hakim saxalal ci dëkk bi mbooloo moo xam ne dañuy taxawe julli yi juróom kon xaw ma fu dee si faate julli waaye ku ko def biir tubaa def lu bokkut ak li sëriñ bi ñaanta la sëriñ bi ñaan sunu borom nangul kon yàlla nañ sun borom may nuy taxawi julli yi tamu dinu ko nangul ba tey ci lii nu ci mbas mi am na lu nu ci gis loo xam ni kone na seetaat boppam bu ma nee na ku seetaat boppam nag ki ñu yilif ak ka ko yilif ñëpp ci yam rawaati nag yi nga xam ne ci wàllu àddina la ñuy yëngutu yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ni innama yarhamullaha min ibadihi arruhama sun borom yërmande mi ngi koy jagleyal ñi nga xam dañuy mi nit nag dana yërëm kilifaam waaye kilifaam yi dana ko war a yërëm te xat-xat bii xew dem mënta am dikk mënta am jaay mënta am jënd mënta am na ci yërmande dugg loolu tegee ko lépp loo xam ne science ko indi boo dee tàqeek moom saw xel du ak te doo noppalu waaye lépp lu nu jaaxal benn gànnaay képp lañ am bu ko mën a saafara mooy ñaan sun borom ndax sun borom moo wax ci téere bi udduxu nii astajib lakum ñaan leen ma may leen sallallahu alayhi wax ci hadiis ni adduhaaw silaahul mu'min kon lan moo tee mbas mi xew nu jël wa kaana xaqan wala xadda karam naa xisnul labraar di ko xëy di ko gonte te ñaan suñu borom tàggale ko ak nun te buñ ko defee mu tàggoo ak nun ndax suñ sang ba sëriñ Saliou daana wax ne ñetti xasida yooyu day boo ci boole fas sa jaaba ji tàmbalee farrij bi jaahil Mustafa han ummati yaa muxrijan habdaka saamin xummati sëriñ bi diggée na ci lu baree bari ci daf ak jël bu waxuma sax tawat yi rek waaye lépp lu jaam di bëgg rek ndem taxawane ak ñeenti xasida yooyu di ko xëcc dana ca jot lu jaam di ragal ndem taxawane ak ñeenti xasida yooyu te di ko jaañ loola dana ko sori te nag bu su waxee yërmande ni ma ko waxee léegi ki ñu yilif dana yërëm ka ko yilif waaye ka ko yilif dana ko yërëm àgg na ci moom sallallahu alayhi wa sallam di ko misaal ni irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa loolu nag aw déggéen la laaj yow mi suñu borom nekk teg nga ne ca kaw boo waxee faaw ñu def maa buñ sëñ ca def nga teg ca yar ba waaye yërëmal ñi la suuf taxa ne juróo leen jëndoo leen moomoo leen bindoo leen dundaloo leen doo leen rey doo leen dekkal doo leen fay kon loo leen def lu tub nawle rek juum loo def lu may ragal yàlla ca ñooñu itam daal di juum waaye nit nag boo ko dee yërëm juróom benn yi fii da ci daje bu xiifee te nga mën koo jox mu lekk na lekk boraf lee nga mën ko wodd na sol bu tawetee nga man koo faj faj ko boo amee njàqare nga mën koo dimbale dimbale ko lu ko jaaxal loo mën a dox diggante moom def ko bu doy dee lompañ nga mën koo dimbale dimbale ko te dégg nag dafa neex lool lu wax bari bari bari dégg rek am solo dafa am lenn ci salaf salafu saalih yi ku amoon ab jaam jaam bi tooñ ko bis loolu la na xari ko lool mu ne kii de dinaa ko duma ba jaam bi yégee tëkku ko mu ne ko sun borom ma wax ci téere bi wal kaasimiina al xaysa ñi nga xam dañuy won mer kooy daal di bañ a werante daal di ko ne kon nag kasamtu xaysi yi sama mer meeg yow won naa ko jàmbani ko ah, yàlla ba mu waxee loolu yemu ca de daf caa teg wal xaafiina xani naas yi ñi nga xam dañuy jàmmal nit ñi mu ni ko kon jéggal naa la mu ko sun borom waxee ba waxee yemu ca de daf caa teg wallahu yuhibbul muslimin mu ni ko demal kon goreel naa la kooku kon lam doon jàng dégg na ko bi ñu ko waxee nangu na ko jëfe na ko nu ñëw ci sunu sang bu sell bu tedd bii di Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bassir lépp loo gis ci moom ci mbaax ko yiw di ko yéemu bu yaakaar ne bi jaaw baa ko booleeg moom ba muy ndaw ba te noonu la ma sa mel ñëpp dañu koy bàkkee ni bëggul lu naqari kenn ndaxam loolu dëgg la waaye li muy bañ dëgg dëgg rek mooy lu naqari yàlla te lu neex yàlla rek ay yitteem yàlla ko fi suñu borom yàggal te may ko kon maa ngi wax ne fu waaye mën a nekk ci juróomi continent yi say yëngutu yépp wëlbati ko jëmale si ko ci Serigne tubaa ndeem bañ ngaa fakktalu bañ ngaa réccu te nu dollu yaakaar ci sëriñ bi taxa ne yaakaar yi am murit ci Serigne Touba du tas waaye yaakaar ji mooy lan nangoo sonn nangoo jaamu yàlla ndax Serigne tubaa deetul ànd ak moom ci tayeel akok tayyi akok bàyyandiku moo tax suñ sang ba sëriñ saar yu bayit wii néewaana bu mu dajalee mbooloo di ko waxte booliwu ko ca fadahatan warahatan lan yuusira sax sun araada ay yakuna muusira ne ca la la neex ban bu sine am la la neex nag ak waru la mba ak jayu tey ñu xam kuy ànd ak sëriñ bi da ngay fexe tàggoo ak i caaxaan caaxaan yi nag daa lëmbi réew mi ndajey daayira yi ndajey jàng ñuy géew ak yépp caaxaan daf cay bari te lu caaxaan nekk sëriñ Tuubaa bokku ca sëriñ Saliou dafa waxoon ne ku jëm ci yàlla day dëddu am po ba mu ko waxee itam dana koo leeral dafa ne xaqiqatul habasi kullu lahbi xad manahat minhu sariyatu nabi lu say aaye loola mooy am po kon al imaamu saafiyu borom ngir la donte nun noo ci ngirum al imaamu malik dafa am lu mu waxoon loo xam ne kam ko waxal dindit koo xam ne dégg nay wax dafa tawar ba yaakaar day génn àdduna mu ni bu ma faatoo nañu wax diw na ma sang ba mu faatoo ñu woo diw ba diw ñëwee daal di waaw ana kitaabu taskirati kitaabu taskira nag ñun ñoo ko fonkut waaye mooy téere su ndaw soo xam ne la nga bëgg da ko cay bind yoreel naa diw nangam diw yoreel na ma nangam may naa diw nangam diw may na ma nangam ndax boo bëggee sa ginnaaw leer te woyof noonu ngay def bañ ko joxee kitaabu taskira ba mu xool-xool fekk ca mu yore borub juróom-ñaar fukki junniy dërëm mu ni kii kat waxutoon ma sang ko ndox ma sang ko ca fayal ko borom bii la xool kon fi may daaneel sama kàddu muy mbooli suñ nit ñi fi daje niveau bi nu suñ borom teg benn la niveau bi mooy ab taalibe foofa képpit fa lañ mën a rawantee taalibe gi nag du dara lu weesu gëm sëriñ bi bëgg ko wóolu ko yaakaar ko te di ko jëfal waaye taalibe laa ba noppi na la neex ngay xëy na leneex neex ngay gonte loolu amul solo nee naa suñ bi yàlla bég na ci waaye li ci yàlla bég bég bég nag mbégte moomee lu dul mbégte def cay topp ndax ku ne xam ne lu dajale fii kat suna suñu feddali la waaye bu jullik farata ak si woon kat boo ñëwee fii doo fa gis fukkeelub li daje fii tay farata joojee di sibaar di bëgg a ñëw moo gën a ñor yàlla junni junni junni yoon ci li nu fe dajee li am solo nag mooy nuy waxante dëgg tey fàttalante te jéem a fàttaliku te itam fu nu wàcc yoon wi ñu jéem koo dabaat taalibab sëriñ tubaa du yaafuus taalibab sëriñ tubaa du tayeel taalibab sëriñ tubaa du bàkkoo dama firu ijji taalibab sëriñ tubaa bakkoo damaa dama wayf diine taalibab sëriñ tubaa day nekk jihaatkat bu dëgg boo xam ne day yemale bopp ak saaba yi àndoon a yonent bi sallallahu alayhi te ñooñe day mosuñoo noppulu mosuñoo ne ci lu lu leen neex lépp lu am ci diine ñu ko xëcc bañ jot ca kon nag ñu itam la sëñ bay da daa wax rek bu kenn yokki bu kenn toqi na ñëpp wàq jëm aljana waay na nu yëngu jëm ci sëriñ bi te lu ñu jëf ñu fàtte ko loolu la naa tax ñu mën a jëfaat jëm ci sëriñ bi suñ sang ba sëriñ da daa wax ne gaal day laa laayoo lu ci waay def ma dencal la ko du lakk du maxe du xuur di su ko sàcc waaye yowmal xiyaamati akbar ku dugal sa loxo bii ci gaal gi yëngal yëngal génne woo dara bul ma yedd yaa ci defutoon dara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wal tusbitan fi jamaatan tuxiin الصلوات الخمس دأبا يا عكيم